Euh, lu ma wax yàlla bu ma ko wax. Euh, fi ñuy dégaaree dañuy commencé waat. Mhm. comme ni ñu ko defee woon def nañ benn émission bay paas mu daal di toj àddina. Mhm. waxoon nga ko. Mhm. sant yàlla sant yàlla bu baax a baax. xam nga des fois ngay wax ma du baram ca la ngay wax nga ne ma maman. xanaa yow balaa ma balaa may yeggale sax nga xam fi may waxee. dañ doon chaque jour ñu ne la wax ju yegg dafa koy moom. xam naa fi ngay waxee dañuy delluwaat di santaat yàlla bu baax di juru ci Seydina Muhammad ndax nga wax mu yegg yàlla la neex mu yàlla suñu borom te neewoon na ne man soxna Awa Fall incha allah rabbi dañuy qualifié néew ma woon na bu ñuy dañuy amee dara de dama ne leen bu ñuy bu soobee yàlla dinañ qualifié te lañ defoon la ñu defoon is loolu lañ koy defaat te yaakaar naa loolu loolu loolu dañul ba tey saagu maa ne moo mujj tiré but ba moo mujj dugal ñoo mujj gagné te noonu la demee woon ca ki nga xam ne mooy final ba te it nañ ko defaat kon nag dañ koy santeewaat yàlla suñu borom santaat yàlla suñu borom soxna Awa Fall mii taal wu yàlla jàll la ku ko jal mu jal jali ku ko jëlut mu jal kon tey nga a jal mu jal jali soxorante beeg bon bi baaxul. nañ ko bàyyi mais mais bàyyi xaar bu ñëwagum foofu. damay teel a ñëw bu ñëwagum sama 18 rek lii maa yow nag li moo tax maa yow. dañ jubóo ñu commencé raak. Mhm. waaw léegi nag ñu commencé. Euh, waxoon nga ko mu daal di am Sénégal jaar fu mu jaaraatoon. Mhm. maanaam affaire yi nan la dikkee ay gént la woon. wala maanaam sa pétaayu moo la ko wanoon wala nga toog ba si ak gis ko. nee na woon naa la sama doom nga ne man naa ma a ko mënul dara du toog ci seen sées bi. waaw dafa leer fi may wasaare. ku tegul àddina toog fi seen sées bi. damaa yàgg toog di tocc. Mhm. yàlla loolu nag dama koy sant suñu borom. Mhm. saa su ne li ma naan chaque jour rek sama mbir yëpp ci loxo suñu borom laa ko teg mhm. ndax yàllaay maye mhm. sant yàlla juri ci Seydina Muhammad yàllaa may may may wax di toj loolu la ku mu naqari na ca mhm. ngi ma waxee nii ma waxee dafa am ni mu demee moo tax ma waxee ma defee ndax man kenn musuma dégg ci wax joo xam ne naq su leen la man chaque jour sama wax chaque jour may may tuuti ma ñëw bàyyi ma ma yeggalee chaque sama doom s'il te plaît may ma ma yeggalee da may may ma yeggale bu ma paree nga lancé nga nga relancé waat ma bàyyi ma rek tuuti ma ñëw waaw dama ne mhm. ku jëli jooy yaa xam la ngay jooy ku nekk xam nga ki man danga dul nangu mhm. man soxna Awa Fall maa dëggal sama bopp def li ma war a def mhm. bi may a naan euh, dañuy dañuy qualifié kenn gënu ne dañuy qualifié kon dama koy sant yàlla suñu borom kuy jooy nag na nga jooy yàlla man li yàllaa ma ko may déggoo ma de fëgguma sama dënn néew ma maay kii wala maay kaa dama ne rabbi sama waati wala addi borom jaami moo ma may lii ma yàlla jox kon nag alhamdulilah alamina tey ku newoon ci suuf doon ma saaga rek te yaa may woo di ma alhamdulilah sa. léegi wax nga say biir wax. maanaam dafa mel ni da nga jàpp ne dafa ñoo xam ne yéen a bokk benn métier bi di ngeen soxorante seen biir. dañuy soxor soxor nañu ñu ko dem ku ne nag am lu la yàlla may nag ku ne nangul li nit lu ko yàlla may boo nangulee li nit lu ko yàlla may rek nga sant yàlla ndax yàlla mooy wàcce ay yonent yooyu wàccewul kenn kese dafa wàcce ay yonent yu bare bare te ku ne am na loola yàlla jox mission bu ne am na ku ko xam ne yàlla teg na ko say loxo kon nit ku ne bu la yàlla wàcce ci doo ngay doomi aadama def la ngay wax kat jël sa vidéo mu doon vidéo bu feeñ am na ñoo xam ne am na ay alal ju bare te kenn xamu leen dëgg la eh, yàlla la neex moo tax doomi aadama yi xam ma lii la yàlla dogal ci man ku ko bañ nag da ngay sonn yàlla la neex yeneen voyante tamit wala yeneen voyante yi bàyyi lu ma ko kenn man soxna aw Fall waaye mais kenn musul fe kenn musul dégg samay vidéo dama ne dama ba nga déglu ma kenn musuma dégg samay vidéo man soxna Awa faal may wax naka sulee noonu wala ma naan beneen voyante mënul dara déedéet duma ko defaan ndax bu boobaa damay weddi yàlla suñu borom te man sama lépp ci sa loxo suñu borom laa ko teg dama ne la bañ bañ bañ bëgg waajaa ngi nii waajate ku ma ku ma tooñ nag man soxna Awa Fall dama lay duma amul werante waaw ah, mais mais dëgg balaa ngay duma kenn man moom defal naa ko rek émission bi nag il faut il faut il faut que mu lay poser question c'est normal. léegi yow kan bu fekkee dem nga bay waat de diw moo ma tooñ. déggoo ma de du ma fi nekk naan diw la. wala du non mais nag mais bu daw res. wuyu ma non munoo ñëw ne. daw res. na kuy daw res du defee nii ma defee. mais déedéet bu fekkee dama ne kuy daw res du defee nii ma defee. bàyyi leen soxorante beeg ak iñaan gi ku soxor. bàyyi leen soxor gi ak iñaan gi xam ne ku nekk am lu la yàlla may man li ma yàlla may dama koy tëb damay wax ak askan wi yàllaa ma teg ci ci àddina may wax ak askan wi par force doole mbaam damay ak askan wi te su ma gisee loo xam ne nekk suñu loon ci askan wi damay gën wax loo xam ne lu baax la ci réew mi ci réew mi laa bokk fii laa juddoo fii laa yoroo toll ni ma toll fii la ma yàlla mayee li ma mayee kon nag euh, équipe bi bu waree dem dama koy wax bu ñu waree génnee sarax man soxna aw Fall la jëntuwuma keneen ku génnewul sarax man sama part personnel dama koy génnee ndax yaay laa ci biir dëkk bi tante laa bàjjan laa lépp laa ci biir dëkk bi kon nag mënoo juddoo ci dëkk bi màgg ci dëkk bi te doo bëgg sa dëkk bi lu baax. mënta nekk naan ndox naan ndox naan ndox léegi baa ma pose question ndax nga naan ndox léegi wuyu ma léegi kan moo la tooñ man question bu laa bëgg nga tontu ma. dama ne la kuy joli jooy yaa xam li ngay jooy man daal xamal li ma wax wax naa ko. dama ne ko ci nekk ku ne. da ngay toog ki sa site wax li la neex fii ci sama sit la. Mhm. lu ma neex laay wax. moom sa kër la moom. sama kër la maa ko moom. léegi dafa ay voyante yoo xam ne fu mu toll nii yéen bokk même table bi bi ngeen di lekkee maanaam su ma waxee même table yéen bokk même maanaam lu ngay gis ñoom la ñuy gis ñoom la ñuy gis. Mhm. Euh, ñan la si xanaa Aida Sine Sall yu ngay waxal wala Selbé Ndom wala wala yeneen voyante yi kan la si ñan la kan ngay waxal. sama doom bu ma wax loolu lu ma waxut. non déglu ma non non question. xoolal na wax ji normal. wala ma teg micro yi dem sama yoon. mais doo teg micro yi wuy ma question bi ma wax man li ma wax posé ma question man maa waxal sama bopp. dëgg neexul ma ne ku ñemewul fi nga jëm mooy am lu muy yox yoxal man aw man soxna aw fal amul lu may tiit amul lu may ragal ci àddina xam nga man kan laa ragal rabbi sama waati wal arti maa ngi sant yàlla ba nga xam ne yàlla may na ma may wax doomi aadama di dégg maa ngi sant yàlla bi nga xam ne ba ma waxee doomi aadama di ko dégg te yàlla di ko yàlla di wéral samay baat lii mu am sens léegi léegi kon ñu génn foofu comme da nga war a génn foofu parce que nag amatul sens bu yàggee dootul am sens d'accord léegi léegi wuñ na euh, mhm. léegi pare nañ maanaam si coupe si coupe d'Afrique si coupe d'Afrique coupe du monde bi Euh, fu mu toll nii incha allah léegi daal di def euh, lii tirage bi def nañ ko sax ba pare. Mhm. Euh, noo gisee Sénégal fu mu toll nii si coupe si coupe du monde bi. barki Seydina Mohamed waxaat naa comme na ma waxee woon. Mhm. Sénégalais yi danañ dem ca coupe du monde ba. Mhm. danañ fa def lu mucc ay barki Serigne tubaa lu kenn yaakaarul woon barki Serigne Touba. du ma gën ci Serigne Touba ay fan. taalibay Xaadim Rasul pur la. pur et man sëñ Fallou seexal sama maam. dëgg la barki Serigne Bamba. ñu jëte waaye nag. kon du ma wax loo xam ne naq su leen noonu la xale yi danañ dem te Qatar. Mm-hmm. danañu fa def lu mucc ayib barki sëñ Bamba. après ci biir nag danañ toogaat fii man soxna aw Fall man ne nii lay demee nii lay demee nii lañ demee waaye si kàttanu suñu borom danañ fa def lu mucc ay lu ñëpp koo xam ne loo xam ne kenn xalaatul woon ne Sénégal dana fa yegg seen xale yi danañ fa teg seen baaraam. Sénégal bu mu mujjee dem lii di coupe du monde 2002 euh, la woon. Mm-hmm. 2002 moo nekkoon première fois ñu demoon. Mhm. génération ñoom El Hadj Diouf ak ñoom Fadiga. Mhm. ñu àggoon de finale. Mhm. est-ce que yi ma gis nii. ak ni mu doxalee nekk seen benn. jàppale xale yi nekk seen ginnaaw. barki Serigne Bamba lu ko raw danañ ko dem. man Fall maa la ko wax danañ fa jolorul rëy lu kenn yaakaarul woon dina dégg nga wax ji xanaa dëgg la baax kay. su ma ñëwaatee fii nag. ci lay gën a neex nag dinaa la. gën wax escoré escoré foofu laa gën a sigéey li may wax fa laa koy tojee mais fii nii li ma la wax dañ laa la wax. newoon naa leen dinañ qualifié ñu ne déet ma ne coupe dina indi am ñu ne déet am ñu ne waaw mm-hmm. te tey anamu ba mu amee lu ñu def. Mm-hmm. ñamaroon ñamaroon critique ci suuf ñamaroon ñaanal mm-hmm. am na wala amul dañ koy sante yàlla ba tey mm-hmm. kon ba tey teggu tegi jéggi ma sama wax ji ci sartal mustaqim mm-hmm. am na wala amul dama na la bii incha allah roba ca Qatar danañu am lu raw suñu njort incha allah ci xale yi jërëjëf xam ngeen ko l'intellectuel déviant moom lañ dajee il faut yaram bi na day tàng nag man maa moom lii moo tax suñu plateau di neex donc loolu moo waral euh, Sénégal Afrique monde bi Afrique Amérique ñëpp di kontaan si moom parce que mm-hmm. euh, lu leer la leen di tegal dégg ngeen lu wax maanaam si coupe du monde bi nañ leen xaar parce que dañ ko indiwaat tamit match chaque fois benn match boo amee ko dem seet di nga ñëw toogaat fii mm-hmm.